bisimila ci ëttu yëglekaay yéegi yéenekaay ci a fës di daal ñàkk a dawal gi nga xam ne ñàkk nañ ci CNG bi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci bopp di président Lamine Diop en tout cas li wér tu wér moom doonte dawuluñ mboolem ñi nga xam nga xam ne moom la yore course di ko manipuler daal mboom ñi nga xam ne ñoom ñoo di amateur ministres yeeg mi ñi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi bëgg course tey dund course ñoom ñëpp daal ànd nañ ci dogal yi nga xam ne moom mi ngi jóge ci moom wala book ñi nga xam ne ñoom la àndal ci liggéey bi muy daal ate boo xam ne atte bu transparence la bu jaar yoon la ndax gis nañ ne daal bilan bi nga xam ne moom moo fi toog ak léegi ci atum 2024 bi nga xam ne moom la ñu nekk gis nañ ne daal inconvénients yi ci am yëpp mi ngi ciy dut baaraam kenn ku ci nekk boo defee lu dul noonu danañ jël ay daan teg ko sa kaw ba pare boole kook ay amande ko wax li wax lee moom ki nga xam ne moom moo di action bi action bee daal luñ dal ren rek moom moo ji ko teg moom la passe 4 wax 6 moom la wax 13 moom la wax li nga xam ne nag moom moo waral loolee mooy xaalis action bi nga xam ne mi ngi tëdd dikkul dóorul fayul xaalis booba bañ ko xaymaa ak léegi mi ngi toll ci ñaari at yu toftal te booba ak léegi daal gis nañ ne xaalis boobee daal amul benn yoon boo xam ne génn na ci mbar mi nga xam ne moom lañ ko def paaka balaa am njariñ day génn ci mbar mi paaka balaa am njariñ dañ koy génnee mbar mi ñu daas ko daggi ko door cee mën a jëfandikoo en tout cas li wér te wóor moom moom bu fekkantoon luy raye mën a munta bu fekkoon luy dóore mën a day xàcc waaye du dóor kenn moom action boobee en tout cas moom li wér xam ne moom lañ waxoon nee nañ woon xam ne ñoom ñoo fi nekkoon jiite woon CNG bu course bi bu Sénégal moo taxoon ñoom ñu ne xaalis boobu duñ ci def benn activité kenn te loolu jeex na tàkk ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekkoon jóge nañ ci ba am ñeneen ñu leen wutu taxul xaalis bi sax jóg benn yoon nañ ne sax ci bële la tane woon ndax régime bi nga xam ne moom moo fi nekkoon boobu dañ leen gis ñuy woote ay réunion di xoqatal ñi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon ci CNG bi waaye daal dafa mel ne xaalis action bi xoqatalaate rek ko taxoon a jóg waaye moom deful benn pas yëkkatiwul benn jeego teg dara li waral lolé nak la kenn xamul lu mu doon amna ño ñoo nak ñi ci biir langue gi nga xam mom moy action bi ñom ño ñe tay gis nañ ci ay benn benn yo xam wax nañ ne tay xaaliss bobu nga xam jëlon jëloon nañ ko def ko ci moy ay copper ba tollon ci 100 millions et quelque ño ñi gis nañ ne dal ci page 6 ak 8 ñom ño ñi nañ dal buñu leen mënoon delo seen xaaliss bi nga xam ñom ño ko jëlon def ko ci action yi ñom dal mom mo leen di gënal ndax dal buñ koy duggal dañu yaakaar ne looy jariñ kursu la way yoon yu mu dar du benn yoon wo xam ne bu baax la gisunu mu nekk lo xam ñi ngi yaakaar ne mu jariñ kursu tal bañ koy dugal amone yaak yaakaar ak firnde yaakaar ne dana jariñ ko ko ci action yi fii lañ yamandi bàyyi bàyyi bonne continuation à vous à vous Dakar. essence zam numéro 10 ragal yàlla gars yi jóg nañu gars yi jóg nañu groupe 3 bi jóg nañu ku nekk a ngi saaf naar ñoom ñëpp jógandoo nañu mu mel ni Mansour Fall moo ñëw ak gaawaan Mansour Fall gaawaan Black Masa Black Masa moo génn 10 ans ñu ngi koy naar 10 ans génn na. deuxième position Black Master ñaari xàcc ñoo ne si kanam am na xàcc beneen buy daw ci aras bi wante Diza moo génn day jaab rek tourné tournal professeur Sakhir Thiam ko sa peex Diza moo génn

10 ans da daan génn ñu koy jàpp tey nag sori na moo ngi foo rek doomu Grand Royal la Grand Royal Moraes Kaldun Neves Kaldun Karo Fortino moom Lonrenzo mooy baayam par Muxtatir moo ngi nii di romb Babacar Mar 10 ans romb na Babacar Mar Gaawaan ñëw na Mansour Fall ñëw na Elisio favori bi ñëw na wante 10 ans ba léegi moo génn deuxième position Mansour Fall maamu koor moo ngi jàpp. nga xamante ni nag moo jiital fas yi je passe bien mooy numéro 6 nekk saako 2 wante ba léegi dèjà moo génn Mansour Fall ak ñi mu àndal ñëpp ñu ngi wàññi distance bi ko sa ñu ngi ci tournant le maire Aïda Mbaye borom ceebu jën penn mbay bu neex bi wante ba léegi dèjà moo génn. ba léegi dèjà moo génn en deuxième position Mansour Fall dèjà moo génn ba léegi waaye Eliseo jaar na ci kaw. Gaawaan jaar na ci kaw ba léegi dèjà moo génn dawal nañu Eliseo dawal nañu Eliseo. Eliseu jàpp na ko Eliseu génn na dawal nañu Mansour Fall dawal na Gawane dawal nañu Mansour Fall dawal Gawane Eliseu mi ngi ci kanam ba léegi Las Palmas. jërëjëf ko sa peex mu mel ni favori bi moo génn ñu naan ko Eliseu moom doomu Honor and Belize la wante Gawane mu ngi deuxième position di daw lu bari Eliseu Soleil de Eliseu Honor and Belize. Mokuba El Kapo par ije sonor ken mar kalamun zedan xacci Mungini, mu ngi Mogawar. di deuxième position Gawan. Gawan Mohamed Mungi mu troisième position Mansour Fall 200 mètres bi dina metti wante Elisio lim joxe bari na Elisio Gawan Mansour Fall Elisio Gawan. Elisio Elisio Elisio Elisio rawna première deuxième Gawan. troisième troisième numéro numéro deux nekk nga xamante ni ba Mbaye Babacar quatrième Mansour Fall